sàcc te sàcc yaa ngi ci nguur gi umaree jolof soxla na yeneen kàngam yuy xàcc di dóorandoo Sénégal na jëm kanam ah, ah. jolof soxla na yeneen kàngam yuy xàcc di dóorandoo Sénégal na jëm kanam mu ngi naan doomu gaynde kenn du ko jam naan rëbb kàttan yére fetal di ko fiise bukki bu sango deru bay la di devise bi nga bëggee fàllu danga doon naan ba doon la biiru mbedd kañ ngay baal ñu yore seeni fetal fiise di ñu ah bon naa ko ba foog ne ñun mun nga ñu réprimer naa di jël comprimé faju jil toog benn aali yow nandoo te nangu woo fi mooy sos ak jeunesse bu affamé wallaay ragalul bali fa yàllaahu ñuy faatu sénégalu lendemain dina change government ak justice for the ngay matu ni mbër bu ñu assommé ni mbër bu ñuy patame di fañ fañi fa waa caaca jublu leen ci xëyu ndaw ñu wàññi bla bla bla kay ne bu xiifee du dégg jatu daa daa daa ñaa ngay defar xelu ndaw du abracadabra ñoom yëpp di daa daa daa ci ay waxu fla fla may yërëm naa la ceelu Kédougou ak Mamour Diallo Farba Ngom wallaay di mbay vingt deux milliards du rees ak foo dugg sa clan jaag karam ak askan wi ak képp koo tudd quarante cinq milliards ci loxoy neuf yi wetu police di ñu ko tiire quarante cinq milliards u arme eaux et forêt ci loxoy neuf yi wetu police gaynde mu ngi naan doomu gaynde kenn du ko jam naan rebokato yore fetal di ko visé bukki bu sango teru bëy la di déguisé bi nga bëgg faru da nga doon raay ba doon la biiru mbedd kañ ngay baay ñu yore seeni fetal fise di ñu tiire di ñu fise di ñu tiire tiire defal yeah Mr Books seen kumpal brand new sound sound bu bees tàq di wax ak uh, Macky Sall saan bi <clears throat> suba lay génn incha allah bukki seen kumpa respect à lui gis nañ taxawaayam ci situation actuelle du pays situation politique macha allah respect à lui puis un son qui va faire tabac incha allah bu weesoo loolu ñu ngi leen di jaare ñëpp di leen màggal di leen ndamoo di leen tiitro di leen bëggee leen sant nag di wax ni ñi ngi jégalu ci retard bi Euh, lu ñu yaakaaroon rek moom mooy Facebook dinañu dinañu libéré mais ba léegi libéré ñu donc euh, nee na des na deux jours Facebook nee na dese naa deux jours de restriction euh, page bu ñu restreint nee nañ def na deux jours donc tey à vingt heures day des benn jours donc suba samdi vingt heures lañ mooy libeere completement ma ñëwaat donc te rendez-vous bi Facebook lañ ko bëgg a joxe parce que Facebook la affaire yi di torojo morojo foofu la gën a bëree fa la gën a jaxee fa la gën a tàngee mais nag du tee parce que ñëpp amuñu ñëpp am nañ Facebook presque mais ñëpp amuñu Instagram donc voilà mais sinon ñu ngi leen di ziar ah. xool yi nag neexut xol yi neexul parce que tout simplement comme ni ñu koy waxee ñi ngi gërëm ñi xeex parce que xeex bi yombul ah. xeex bi yombul kon donc képp ku nga xam ne mu ngi teewal ci mbedd mi rek. mérité na much love and thanks mérité na respect mérité na estim mérité na tam ñi ñaan la ko mucc ak muccule soldaar yi daanu bari nañu ay soldaar yi ba léegi ñu ngi teewal parce que fii ñetti barab yi nee naa leen doomu aadama bu dee xam na yàlla waru ko ragal muy hôpital kaso ak bàmmeel doomu aadama bu dee xam na yàlla waru ko ragal ndax barab yooyu saa yoo demee di nga fa fekk ki la gën ak ki nga gën te ay barab la yoo xam ne yàlla bu ko tracé sa dund sa destin dara mënu ko mënu la cee muccloo dara mënu la cee muccloo donc ku ci nekk li ngay dund li ngay dund jàppal ni yàlla moom moo ko tracé moo ko tracé ci sa destin donc ñun ragaluñu hôpital ñu kaso ñu bàmmeel ñett yooyu nit mënul doon missionnaire di ko daw Serigne Touba dawu ko Alaaji Malick dawu ko mu Laay daw ko et cetera Baye Niass dawu ko lu nekk dund nañ ko ci ay nattu doomu aadama parce que yooyu ay nattu la rek hôpital nattu la kaso nattu la bàmmeel nattu la te foo ci dem ak noo ci mel ak noo rëy-rëy ak noo mag-mag ak noo ragal wala noo am fit di nga fa fekk ku la ëpp fit di nga fekk ki la gën ak ki nga gën ci lépp buñ la dugalee ci hôpital munoo faa tëdd ba gën fa am na ñu la gën ci yàlla gën la ci yeneen gën la ci fépp boo duggee ci bàmmel ak doo fa mën a dugg dugg dugg ci bàmmel boo fa ñëwee di nga fekk ñu fa tëdd ñu la gën ci lépp kaso ba ngay dugg yow dugg fa ak ngor rek bul fa dugg sàcc yëfu jàmbur bul fa dugg jël alalu jàmbur mais dugg fa ngir comme dafa Serigne Touba duggee di xareel ngir suñu borom ba Serigne ba yàlla dugal ko fa mu dugg fa ak ngërmaay suñu borom moo tax mu génn fa ak honneur et dignité donc ñun kaso yi ñuy dugg nii mënuñu ko ragal parce que kaso nit moo ko defar te nit moo gën lépp donc ñun on n'a pas peur de la prison peur prison bi ñu Macky Sall di nappee non on n'a pas peur de la prison gars yi ñu ngi fay dugg mais teewul gars ñu ngi teewal te gis jamono ji sama gars yi du ñu lâché mukk l'affaire parce que gis nga lu ñu Macky Sall bëgg a def barki alxuraan nit bu ko fekkee doo gor ku du gis nga Macky Sall lu mu ñu bëgg a def nii tëgg tëgg mu ñu bëgg a tëggal nii nii nii nii donc xoolal képp ku dund Sénégal doo gor muy góor di jigéen di mag di ndaw ay doomu aadama yu toog porté benn projet di ci rey seen bopp di ci xalaat matin bi di soir di ci cotiser di ci jaayante lekkuñu am na ñoo xam ne lu ñu waroon lekk sax dañ ko joxe cotisation la am na ñoo xam ne seen dépense bu kër sax dañ ko joxe cotisation nit yi di tayle seen i bakkan di tayle seen i bés di tayle seen dundu pour joxe pour projet boobu noonu nga xam ne ñëpp dañoo gis ni dañ ko war a sànni Macky Sall la ñëw ci banditisme def 12 ans ñëw bëgg ñu dóor dóor mbott ñëw nangu affaire yi changé ko éliminer Sonko éliminer son parti éliminer tout te ñi toroxal ñi nangam nangam bëgg a ñëw toogaat ne day jël ay nitam choisir ku ci neex kooku falu ñu continuer gis nga loolu bu nee ma xam ni baayu Macky Sall moo gën bépp baay Sénégal. loolu bu sottee ma xam ni gis nga Macky Sall ak baayam ak yaayam jur nañ ku benn baay dul jur fii ci Sénégal bu bu Sénégal doonee Sénégal ba léegi kon papay Macky Sall ak Macky Sall ñu yaay Macky Sall jur nañ koo xam ni moo gën ku taxaw na ñëpp dem jébbalu ci Macky Sall xam ni mooy yàllay Sénégal moom. parce que moo fi fekk lu doomu aadama yi jeunes yi ñëpp xalaat ñëpp nekk ci di ci rey seen bopp di ci fanaanee guddi bëccëg Macky Sall ñëw en un temps trois mouvements rajaxaloo lépp jël suur ñëw fal toogaat ba mu neex ko mu jël ku ko neex ne teg ko da ko yow diriger bu boobaa ñu xam ne ñun ku ci xool sa bopp xam ni kenn waratu fi taxaw ñu naan la sa baay kii mooy kii mooy sa baay wala kii mooy sa yaay boobu boobaa sa baay tekkiwu fi dara sa yaay teg ko fi dara ndax jur nañ koo xam ni moom baayam ak yaayam buñ ko juree fii moo taxaw dëkku lëmb 17 millions di leen def loolu lu ñu lu ñu bëgg di falu ba mu neex ko jóge fa fal ku ko neex loolu du fi am tey du fi am ëllëg ak lépp ñu mun a def wallahi la azim ñun de sañuñu dund ci ni makki Sall bëgg a doxalee nii ñun ñu dund affaire boobu am donc ñun on est prêt on pour tout te li ñuy def duñ ci wax ak kenn dañuy toog pare pour jóg mais dama ne Macky Sall li mu namm wallahi bu amee ma xam ni Sénégal gor musu fa juddoo benn gor la musa am muy Macky Sall bu moon ma xam ni fii du kenn ku fa jur ku baax makki Sall kese la baayam ak yaayam jur ku baax parce que moo jàpp di 17 millions tas seen yaakaar di 17 millions yu toogoon di reyante topp ci dara di ci yuuxu di ci jooy di ci jaayante mu ñëw tëgg dóor leen benn dil vite fait ñëw Macky Sall bu demee ba lu gisal lu mu def jàpp Ousmane Sonko tooñ tëj ci kaso bi ne dafa dissoudre partem ñu wax di Macky Sall yi di dajale ay waa partem di dajale ñoom ci biir palais bi di xool ne kan lañu war a jël jël mais non mais saa waay lii yomb na de amul lu ko gën a yomb amul lu ko gën a yomb benn ma ne ban bandi boo xam ni yow bu ngay tabax sa kër fekkewu ko sa baay bu muy tabax këram fekkewu ko ngeen toog di xalaat lan ngeen di def seen kër mu taxaw ci punt bi daas paakam dugg rey sa baay rey sa yaay rajaxe affaire yi jël ay nitam dugal ci biir diriger ci kër goo xam ne tabaxu ko defaru ko moomu ci dara mu ñëw di ko diriger dafa mel noonu la bëgg a mel est-ce que di nga seetaan kenn mu jóge fële ci àll ba ñëw fekk sa baay ak sa yaay ngeen toog ak seen projet yi ngeen amoon yëpp rey sa baay rey sa yaay ba pare génn leen paaka ne jël ay nitam ay bandem ñëw ci ngeen ne leen jiite leen kër gi bu boobaa ñun ñëpp maanaam ay orphelin lañ donc loolu duñ ko nangu tey te duñ ko nangu ëllëg résistance sur toutes les formes sur toutes les formes laa la wax sur l'étendue du territoire national dañ koy jaayante ba mu jeex tàkk soit mu rey ñu mbaa ñu rey ko xaar ñu ci kenn xaaruñu la police xaaruñu gendarmerie xaar ñooñu ñëpp c'est des traîtres c'est des traîtres de la république donc on n'attend rien de personne on résistera parce que affaire bi du ay affaire Sonko dafa dépasser la personne de Sonko c'est le Sénégal lañ la ay ab nit bëgg ñëw gis nga li fi am Macky Sall bu mu fi faloo ba léegi li fi am ci ay nit yu ñu rey musul am ci kaw suuf musul am Sénégal Macky Sall lu mu rey ci doomu aadama musul am Sénégal benn président musu ko def ñaaw tëf yi Macky Sall def ci ci ci nguuram musul am et puis ñoo xam ne ne dañuy rey sans sans sans état d'âme bu ñu demee bay taxaw di def ay conférence de presse di wax naan ñi génn ci biti Sonko moo leen reylu mais Sonko mais kon kon Sénégal boo génnee rek dañ la war a rey gars yi ñoom respecté wuñ leen parce que Seydina Mohamed sénégalais yi gars yi jàppee wuñ leen seen dirigeant yi xar lañ leen jàpp ay bëy mbaam xuux dañ leen war di rendi loolu lañ jàpp ñoom en France nit day génn sol kagul yor yor euh, cocktail kenn du ko tiire Macky Sall ne non bu dee sénégalais la du nit baayam jurul nit yaayam jurul nit ay mala lañ ñoo fa nekk donc ku ci sol kagul ak cocktail molotov tiire leen ko bal allahu akbar Macky Sall nee na ku nekk Sénégal yor cocktail molotov ak ak ak ak kagul rey leen ko en France booy di sol cocktail di sol kagul di yor cocktail te kenn du leen tiire donc kon ñooñu ñooy nit kon kuy jur doom bu ku bëgg a jur nit ku bëgg jur nit demal juri ko France ku bëgg jur mala demal jur ko Sénégal parce que mala lañ leen jàpp la ñuy rendee noonu mala kese la ñuy rendi sans permission mala kese la ñuy tiire dóor ko nu mu leen neexee parce que yaa ko moom parce que yaa moom mala mala jàmbur sa boo ko reyee France ñu mun a yor seen cocktail Molotov yor seen yor seen Kaboul kenn du leen tiire Espagne ñu mun a def loo kenn du leen tiire Sénégal ne Macky Sall leen ku ko def comme ñoom du ñu nit rey leen leen tiire leen bal fetal ñu ne nit génnal nga nga marche ngay marche ñu ray la ngay marche ñu rey la ay seen ministre génn ne Ousmane Sonko bu mu fi léegi lu ñu rey ci nit mais ñan ñoo leen rey Ousmane Sonko moo leen rey Ousmane ko moo leen rey wala policier wu Macky Sall moo leen rey wala militaire wu Macky Sall moo leen rey wala ay ordre ministre Macky Sall ñoo leen rey léegi ay man kon man fii bu ma nekkee nii bu ma génnee ci mbedd mi ñu rey ma donc ki nekk ci kër gi na ma génnal kooku moom moo ma moo ma rey quoi bu ñu demee ba ay Abdou Karim taxaw di wax ne boobu nguur am ba léegi nit yi dee mosuñoo dee fii mais kan moo leen rey ñu ne Sonko moo leen rey mos ngeen gis Sonko fetal mus ngeen gis Sonko jiite police mus ngeen gis Sonko jiite la gendarmerie nationale mus ngeen gis Sonko jiite euh, militaire yi bay raylu mais comme jàppewuñ sénégalais yi lu dul mala ku ci nekk boo xoolee xam ne ñii mala lañ ñu jàppee comme jàppewuñu ay nit moo tax ñu décidé rey ñu ba pare waxuma la ak dara di génn cent francs ak dé ak loxo yu takk deret ak paaka yu takk deret di siit ñu taxaw di ñu wax naan ñu ma Sonko moo rey nit yi kon ku génn dañ la war a rey ko donc gars yi nañ xool sañu bopp yéen sénégalais yi nekk senegal gars yi jàppee leen nit gars yi amuñu cëru nit ci yéen gars yi jàppee wuñ leen lu dul ay mala fa rey rek lañ gis ci boo leen génnee di marche ñu rey leen boo leen doxee seen ñaxtu ñu rey leen boo leen solee seen kagul pour bañ caméra yi gis leen ñu ne caméra yi mënuñu ko gis kon rey leen leen parce que ku ci solul masque ñu jàpp la ñu sol masque ñu ne léegi bu nit ki bu solee masque rek ray leen ko léegi soit mu def yaramu neen caméra yi gis ko ñu jàpp ko muy nëbbatu ngeen ray leen ko incroyable incroyable dans ce pays mais Sénégal du dëkk te ñi leen jiite barki Seydina soo ko waxoon na ko te loolooy dëkk loolu du sax xam-xam billaahi da ngeen subir lu mburu dajul ci fuur da ngeen da ngeen gis ngeen Macky Sall ngeen mu bëgg a teqali moom tant que rayu leen ko ray laa leen wax tant leen ko tant que Macky Sall deewul ñu yóbbu néewam ba ñu ubbi xool ni kii la billaahi doo leen am jàmm xanaa yàlla suñu borom jàpp lañu ci mais sinon dinañ subir benn sub benn benn enfer sur boo xam ne ah gi suñu giiru dund duñ mus fàtte Macky Sall ma ngay rey ma ngay tëj ma ngay fenalaate ma ngay sosalaate ku gën a nit ku gën a du ma ne nit dëmm un vrai dëmm dans le vrai sens du terme moom mooy Macky Sall un vrai dëmm lekkkatu nit reykatu nit mooy Macky Sall di rey doomu aadama yi ay nit génn di fen di sos naan ay Sonko Sonko dafa mës a tiire nit dafa yara fetal dafa jiite ñuy rey ñoom ñooy rey bi yóbbu ay nervi di rey te ñu ngi ay ku ay attentat yi ñuy def noonu ñu ngi koy waajalaat beneen am na bu ñuy bu ñuy waajal nii ci ci côté booy dem Pikine ci kii bi lu mu tudd inter kii pôle bi technopole bi ñi ngi waajal beneen ci technopole bi bii ñu def nii ñoom ñoom la ñu ngi waajal beneen ci technopole bi parce que Macky Sall a a dafa santaane pour ñu def yu mel noonu ñu def ay attentat meurtrier ñu def lu mel ni ay kamikaze pour mu mën a dëkk bi mu mën a wax ne dëkk bi dafa nekk en danger booy yi ñu ngi génn dëkk bi léegi ay rebelle wala ay terroriste ñoo ko occupé comme saa ñoom ñu mën a récupérer dëkk bi Macky Sall continuer parce que Macky Sall parewul pour jox ko ki nga xam ne moom mooy euh, euh, Amadou Ba parewu ko amul wóoluwul Amadou Ba wóoluwul Amadou Ba moo tax mu leen di signaloo ay charte moo tax mu leen di signaloo ay charte charte yi mu leen di signaloo mooy kaay la ñu continuer li doon def képp ko fi falu li may def ngay def da ngay ñu fi nekk da nga leen fi bàyyi man bu fi jógee ministre yi da leen fii bàyyi bul changé dara équipe bi waroo ko changé loolu mooy charte dañuy dañuy benn bokk yaakaar kenn du ko tas dañ fiy des ba léegi ministre yi ma fi bàyyi ñoo war a continuer ni may jiitee moo war a continuer lépp moom war a continuer donc affaire u défense su parti bi la nañ défendre parti bi nañ sàmm parti bi nañ protéger benn bokk yaakaar donc moom moom xoolul sax luy jëmale kanam Sénégal moom dafa nekk di protéger wu moom di nekk di protéger ay sàcc yi ba pare loolu mooy continuité moo tax mu ne leen horizon deux mille trente cinq xool ñu xool ba yàq ñu Macky Sall nañu horizon deux mille trente cinq ne leen balaa ma leen di bàyyi deux mille trente cinq sa waay ñu ngi ci deux mille vingt quatre Macky Sall ne nañu horizon deux mille vingt trente cinq ne na kaay leen ma topp leen ma dinaa rayanteeg yéen ba lekk leen yéen ñëpp lekk seen bàyyi lekk seen yaay warax leen yéen ba deux mille trente cinq man maay jiite man Macky Sall maay teg samay nit. di jiit samay nit di jiite ma ko fiy teg nit yi di ko continuer parti yi ma koy dissoudre di di jël koo leen yaakaar ma tëj ko kaso def ngeen ko fi Khalifa Sall ma tëj ko kaso def ngeen ko fi eh, Abdou eh, Karim eh, Wade ma tëj ko kaso ngeen jëlaat seen yaakaar indi ko si Sonko ma tëj ko kaso ba 2035 maa fii moom ku fi sëqat man dóor la ci kaso yi wala ma rey la wala ma disparaître loola waaw may laajte moom Macky Sall moom xanaa jiwu baayam du jiwu nit moom xanaa espère mu baayam moom jur bàyyam xanaa espermam dafa rax góor yi wala lan wala ñun sañu ñun ñun lu ñu fi indi xanaa dafa rax ndox walla ñun ñoo newul original bi moom mooy bu original bi moom toqatal manium xanaa dafa dafa dafa rax or wala dafa rax jamaan comment une seule personne peut neutraliser toute une population di rey ku ko neex di tëj ku ko neex ku mu ne dama lay tëj tëj na la 17 millions de sénégalais kenn mënu ko mënul taxaw weddiloo ko walla ne dindiloo ko lu mu bëgg rek mooy am lu mu bëgg mooy am xanaa moom sperme baayam dafa dafa dafa am copp su or mu wax ñu bu dee ñun sañuy bos nag moom amul original ñun dañuy ñëw nii matuñu ay nit mu mu ne ñu Sénégal yéen matu leen man sama baay euh, euh, sperme dafa am or moo tax mu jur ma man ma wuteeg yéen yéen man maay nit bi loo fi waay def mun naa ko mun naa ko teg donc loolu noonu il faut Macky Sall biir fi mu nekk nii lu fi des ci nguur gi Macky Sall waratu ko jiite war Macky Sall waratul mën a jiite ci stabilité loolu waxuma la ay trahir Ousmane Sonko loolu c'est trahir tout le peuple sénégalais toute la nation guerrière Macky Sall ñëw taxaw fii di jiite bu bu to benn fan Macky Sall bu jiite tee ma xam ne dëkk bi du nit dëkk bi day déstabiliser wu ba ilaa yow mi din jàppale ne nag révolution du benn fan du ñaari fan ñi ngi doo ko tàmbali Mali ak imam Dicko trois semaines la ñu def trois semaines di xare di xare ba yàlla may leen ndam Égypte def nañ plus de presque un de xare yàlla may leen ndam Tunisie def nañ plus de trois mois de xare pour yàlla may leen ndam donc on désespère pas Burkina def nañ des mois de xare pour yàlla may leen ndam on désespère pas te jàpp leen ñi ngi doog a tàmbali tous ces peuples là ñi leen jur ñooñu jur tous ces peuples là ñu gënoon sadik Macky Sall moo fa nekkoon te daanee nañ leen donc jël et avec l'effort bu ñu góorgóorloo dañuy am ndam encore une fois les bu ñu góorgóorloo dañuy am ndam léegi nag li nga xam ni moom moom tax ñu bëri ñëw pour déglu comme niñ koy faral di defee mooy bëgg nañ xam ci portable boobu dara c'est vrai que gis ngeen portable boobu man ci live bi sax maa ko bëggoon defee ci Facebook bi portable boobu du portable soxna soosu portable boobu nag yéen ñi nekk ci suuf laay wax yëgu leen lu xew mais portable boobu bëri na pression trop trop trop trop bëri na pression pression bu garaaw moo ci am coow lu rëy moo am ci portable boobu barki alxuraan bu ma la waxee ni man toog naa benn fan te ay njiit woowuñu ma ay autorité woowuñu ma ay sëriñ woowuñu ma coow lu bëri na lool lool lool lool lool lool lool ci portable bii te waxoon naa leen li ma leen waxoon rek ne leen portable bu fekkoon ni portable kese la portable kese kese kese kon ñoom portable bu amul dara bu amul nix portable yoo xam portable kese la waa léegi lii laay tàmbalee wax ci dama ne Sonko yàgg na nangu portable ci policiers yi ak gendarme yi te musuñu ko jàpp dëgg la wala la duul gis ngeen nit ñu yónni ko ci Sonko mu ñëw fa yore portable am yore motoom di enregistré ay garde corps Sonko jàpp ko ñu nangu portable boobu portable boobu ba léegi mi ngi ci kër gi mus ngeen gis gendarmerie dem daaj ci këram déedéet mus ngeen gis euh, nu mu tuddati euh, police dem dajji këram déedéet mus ngeen gis ñu dem jëli ko déedéet kon nag du portable kese bu doon loolu kon portable boobu noonu ngir renseignement généraux boobu noonu Sonko jëli woon portable boobu kenn musul yónnee données yi nekk ci biir parce que portable <laughs> portable ba amul daa Sonko ñëwaat deuxième fois ñu ñëw installé ay matériels yu police yi sophistiqué jënd ko ay millions teg ko ci buntu kër Ousmane Sonko taal seen oto dugal ko fa di enregistré Ousmane Sonko ay garde corps am ñëw xeex ak policiers yi nangu matériel yooyu loo xam ne moo gën a cher portable foofu ñu nangu ko jox ko Sonko Sonko dugal ko këram ba suñ jonn yàlla tey police dugg fa dajji kër gendarmerie songu fa jëluñu ko yóbbu te loolu moo mun naa jënd fukki portable ak juróom-ñaar léegi boobu tam muy deuxième lan moo tax bii nii ñu jël portable bu ma leen won simple bu tekkiwul dara mu jaral leen ñu ñëw loxoti Sonko yóbbu dal jaral leen wàccaat fa guddi gi di wër kan moo yor portable bi ci lañ yóbbee benn talet sow ba nii defeere ko mi ngi ci kaso bi tey nan dañuy wër Juan Branco pour xool kan moo ci yor portable bi loolu moo tax bàyyiwun benn sow parce que dañoo jàpp ni benn talet sow moo yor bi bu ñu ñëwee kër Sonko di ko jël si di ko yóbbu ñëw ñu rek jël si ko te Sonko nangu na fi jël na fi ba jël fi matériel famille Perez ñoom Idouane Perez ñoom Gabi Perez mooy matériel police bi nangu na ko Sonko nangu na ko lan moo tax demuñu jël ko matériel yi donc lan moo tax ñu rey seen bopp portable bi bu ñu yóbbee Sonko ba pare guddi gi la ñu ñëw guddi ñëwaat kër ñoom Ousmane Sonko di ko jéem a dajji pour jël portable bi donc lan moo tax xanaa du portable simple bu ma leen wan nii portable bi bu bees tax soixante-quinze mille lay jar def naa samay renseignement portable bi soixante-quinze mille lay jar Technospartak soixante mille francs lay jar kon bu doon tey portable kese buy jar soixante quinze mille gendarmerie dugg otoom def ci ay camion nit yi fekk dal yor ay armement ñëw ak garde ñëw guddi ci kër jàmbur di taj ji ak rajaxe pour lan pour cent quinze mille léegi yeneen yi nag yeneen portable yi gën a cher yi nag lan moo tax defuñu seen matériel yi nag donc portable bomba ci ne bombe atomique bombe ñun bu ñuy wax dañuy agencé et c'est très logique dof nit bu dof sax bu ko dégloo comprendre question rek boo ko posé lan moo tax ñu jël matériel Idan Perez ak Gabi Perez Sonko jël ko te topp ñu leen dàqewuñ leen daajiwuñ kër ñu jël portable daajiwuñ portable bii di jar cent quinze mille ñi ci rey seen bopp guddi gi bu ñu ñëwee lu ñu def dañoo attaqué waat bu ñuy njëkk ñëw jël si Ousmane Sonko lan lañ def lan lañ def bu ñuy jël Ousmane Sonko di ko naan dañ koy forcer pour yóbbu ko ñeneen ñaa ngi visiter ci kaw terrasse bi partout trois cent personnes pour benn portable bu cent quinze mille mos ngeen ko dégg dajale nu tey ni GIGN bépp des éléments yoo xam ni ñoo gën a spécial spécialisé wu ci ci suñu police ak suñu gendarmerie trois cent personnes bien armées fetal nga dugg ci kër jàmbur na Olivier Olivier Olivier mel ni kuy jëriñ Ben Laden mi ngi doog am dans l'histoire kii lan portable bu cent quinze mille ba nga duggee première porte ba nga nee à gauche le basketteur Khoureyssi Thiam c'est un américain moom moo fa nekk ñoom sénégalais yi lañ yab yabuñu américains yi yabuñu français yi yabuñu australiens yi c'est un américain le basketteur Khoureyssi Thiam lañ fa fet fetal lañ ko tibi kar kar Olivier Olivier ak ñeneen ñu fa nekkoon di attaaya ak gardien bi Olivier mais sa waay xanaa du portable simple Olivier bi lu ko fi jaar yéeg ba ci kaw ñuy dajji buntu c'est la première fois dans l'histoire dajji buntu kër Ousmane Sonko jël ay caméra muur ko muur ay caméra ñuy waxati ngeen di tëb ay miir di dajji bunt loolu c'est du jamais vu xanaa benn la del la ki nekk ci kaw yoru arme yoru dara bu ñu ñëwee dañoo dóor pied de biche bi dajji kër gi ñi tëb ci miir bi ñi tëj ay caméra enveloppé ko ñii di allumer ay nit di fetal fetal di leen wax wàcce leen seen portable wàcce leen seen portable yéeg ba ci kaw ñëw au lieu Ousmane Sonko n'a pas résisté mais pourtant da nga fa ñeneen ñi ñu au moment bi ñuy daan jàpp Ousmane Sonko comme bandi ñi ngi wër portable rajaxe nañ ci kaw yëpp pour wër portable mais heureusement portable dem na yoonam parce que xam fan lañ nalawee problème bi ba mu amee ndaw si bu mu woowee ay supérieur am supérieur am dañ na ko bouger leen ñu bouger moment bu ñu bouger ñoom dañoo affaire bi dafa am rek dañoo wax si dañoo wax supérieur yi rek ni mu demee. portable Ousmane Sonko jël na ko parce que portable boobu du portable ndaw si portable service la bu doon portable ndaw si seen yoon na ko ci portable service la képp ku ñëw portable boobu soxna si moo ci dugal moo ci dugal pisam xëy na portable am dafa amoon problème wala je sais pas moo ci dugal pisam moment boobu mais portable boobu portable service la moo tax mu bëri secret du portable ndaw si bu mu moom portable service de de la gendarmerie la portable d'espionnage la portable d'espionnage même oto boobu noonu du oto gendarmerie la du otoom ndaw si sax mënul dawal oto moo tax ma ne leen quatre la ñaari góor ñaari jigéen ndaw si mënul sax dawal oto te ñoom duñ fa toog ñetti fan yo oto ba nekkee foofu ñoom ndaw ñooñu noonu nekkuñu fa dañuy changé ndaw si mi ngi ñëw ay côté une heure et fekk na ko génne di julli ci est que xam ngeen ni ndaw si bu muy moom moom bu Sonko jógee ci jumaaje di ñëw lay doo ko gis ndaw si lay doo ko gis Sonko est que xam ngeen loolu Sonko bu mu jógee ci jumaa ji dañuy bis la xale bi jigéen bi doo ko gis Sonko moom Sonko bu mu génnee di julli ji moom nekk gu fa dafa changé remplacé ñeneen remplacé ñu doog a ñëw donc xanaa portable boobu portable service la j'ai eu même les hautes autorités de la gendarmerie nationale man Mollah Morgun les hautes autorités de la gendarmerie nationale du Sénégal j'ai eu woo nañ ma man kenn ci ñoom ponkal bu rëy ci auto ci gendarmerie billahi wallahi wa taalahi barke alquranu karim ci affaire portable bi ci affaire portable bi donc du portable simple portable bi portable de service la képp ko fa ñëw portable boobu du ko bouger oto boobu ñetti fan ba jàpp ñeenti fan def na ko fa lu fa jaar ci ay gendarme ak ay policier kenn xamul lu mu day dañuy remplaçanté mel ni ñuy garde Ousmane Sonko dañ doon remplaçanté bu ñuy demee ñii dem ñii dem ñii dem moo tax ndaw soosu ma ne la victime kese la daf cee tombé mais du ci dara portable service la ku ci ñëw moom ngay yor ku ci ñëw moom ngay yor moom ngay rendre service le supérieurs les chefs moom ngay rendre service ponkal yi nekk ci état bi loolu moom moo tax donc ndaw soosu noonu nekk fa suba ba ngoon bu Ousmane Sonko génnee di julli ndaw si nekk fa bi Ousmane Sonko di ñëw ca la ndaw si yore woon portable bi donc am na ñeneen ñu ko yore woon donc portable boobu jàpp leen ni la fa nekk du ay benn fan du ñaari fan du ñetti fan depuis ñooñu nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon nekk ci barrière moo tax ma ne la portable bi lu doy waar la portable boo xoolee même li fi nekk information yi du ay information ñetti fan même ñu nekkoon ci barrière yi portable bi liñ doon enregistré bu Sonko génnee di doxantu tout ñu nekkoon ci barrière yi ak la mu toog ci këram renseignement yépp mu ngi ci portable renseignement yépp mi ngi ci portable donc encore une fois di leen waxal pour ngeen comprendre ba ñu ñëwee ba ñu jógee jumaa di ñibbisi li ma leen wax nag takk leen ko téere lu ma leen wax takk leen ko téere barki alxuraan li ma xam ci réew mi bu ma ko waxoon dëkk bi seey seey laa la wax man xam nga ñam ñoo ñu ay mbuucaa mbuuc ñoo mun a yab mais ma ñàkk sama ndey man autorité yabuñu ma billaahi wallaahi bu fekkoon guddi gi ñamay woo ñu wax naa ko suba si ma ñàkk sama ndey ak sama baay ñi leen di défendre sax dañuy dem rey ndey seen baay seen yaay te xam ne du ma seen morom ku ma yà ku ma xamul rek moo ma yàpp mais li may wax fa muy yëngal ak fa muy yegg ma ne la ku ma xamul rek moo may werante ma ñàkk sama nday seen autorité yi ngand nekk ci réew mi barki laa ilaha illallah ajjuma lañ ne damaa julli ji ñëw billahi wallahi wa taalaahi barke alquranul karim autorité yi gën na ngandi ci réew mi dañ may woo di ñaan ak saraxoo ko ak yërëm tëru yàlla laa waat nag kon bu ma fene yàlla na ma safara jaxana ma jël addiya kon yàlla bu ma gisanteeg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam autorité yi gën a ngand ci Sénégal yi ngeen di wax nii dañ may woo sama téléphone billahi wallahi wa taalaahi di négocier di ñaan ak saraxu kenn yabu ma ci am na ñu ma ñemewul sax dañuy yóbbu ñeneen yónni ñeneen pour ñu wax ak man di wax nag Cheikh Sarr le commandant Cheikh Sarr jot naa yóbbanteem moom xam na man xam na le commandant Cheikh Sarr jot naa yóbbanteem jot naa yóbbanteem jot naa yóbbante seen njiit seen njiit yi jot naa seen yóbbante di leen wax ni pour ngeen yëg ko ngeen xam ni Ousmane Sonko bu mu julli jee ba ñëw bay ñëw Ousmane Sonko ba suñu jonn yàlla tey jegewul ndaw si jegewul ndaw si Ousmane Sonko jegewul ndaw si ba ñu jógee jumaa yegg si ndaw si téléphone la téléphone bi la doon wax mu ngi doon wax ak xaritam ci biir téléphone bi man xàq bil xàq nag laa leen di wax xàq bil xàq xooluma ci kenn nag yàlla rek laa ci ragal ndax man je suis un citoyen un combattant d'honneur pour la résistance nu ma xeexee woon Abdoulaye Wade bu jóg laa fi xeex Macky Sall ba du fi jóge keneen ku fi ñëwaat keneen defaat nañ di ngeen ma nii may xare ba laa di di ko tayle man Sénégal ma ñor keneen ñoruma kon nekkuma ci détail dama ne ki nga xam ni mooy Sonko dañ koo fanaal sosol ko Ousmane Sonko laalul ndaw sos ndaw si da wuyu téléphone téléphone boobu daf ci def pisam di wuyu moom bu muy ñëw Ousmane Sonko rek loolu de bu muy ñëw moom Ousmane Sonko dem na julli ci fekk ñu def relais changé téléphone bi des fa ba mu ñëwee mu jël pisam dugal ci biir téléphone bi Ousmane Sonko bu muy ñëw mu gis ko ci information ndaw si dafa fit bi moo ne tëf ndaw si fit gi fekk mi ngi doon wax téléphone garde corps Ousmane Sonko moo ñëw boo jage ko nekkoo ko da mu enregistré mu ne ko noo enregistré moom mu nangu téléphone bi ba léegi Ousmane ko jegewul 2 mètres ni 3 mètres ni 4 mètres ndaw si garde corps kenn ci garde corps yi moo nangu téléphone bi ñuy werante foofu dugaloo ko xosewu ko dóoru ko bu bumaxu ko laalu ko ñuy werante mu ne ko lan moo nekk ci téléphone da nga doon enregistré ndaw si naa ko non enregistré wu ma ba coow li commencé riir la leen Ousmane Sonko ne ko indi téléphone mu indi téléphone mu ne ndaw si. ak njekk ak teraanga ne ko dugalal code bi nga dindi lu nga enregistré ndaw si di ko xool ba léegi bouche bee Ousmane dugg ndànk ci biir kër gi yéeg ci kaw di yeggali liggéeyam ab nit moo ko fa fekk jëlaat téléphone bi ci moom ba léegi Ousmane Sonko waxul ci téléphone boobu ndaw si rendre compte ndaw si rendre compte ki nga xam ni moom mooy ay supérieur ay supérieur am ne ko waa ok léegi bougé leen ñu taal seen oto ku góoroo doon dawal ñu taal seen oto dem ba ñu taalee seen oto bougé Ousmane mi ngi ci kaw def na une heure trente jàpp deux heures deux heures de temps ki nga xam ni mooy chef bi woo supérieur am ñu woo ki nga xam ne mooy Abdou Karim Diop Abdou Karim Diop waru waru fanaan Sénégal benn fan Abdou Karim Abdou Karim Diop daraam waru fa toog Abdou Karim Diop daraam waru fa taxaw lépp Abdou Karim Diop la tux yàmbaa rek lay def donc Abdou Karim Diop ci boppam moom lañu woo ne dafa am ndaw si ci renseignement généraux bu fa am ay coow ak Ousmane Sonko ci la Abdou Karim Diop ne leen jóg leen ngeen def nu mu gën a gaawee ngeen dem jëli ji Ousmane Sonko te Ousmane Sonko naa rien à voir de ba suñ jonn yàlla tey Ousmane Sonko jëlul téléphone jegewul ndaw si mu ne ko ndaw si ne ko ndaw si bu mu rendre compte dafa dañoo dañoo bouger ba ñu bouger ba ñu bouger ñoom donc Abdou Karim Diop moo santaane ñu dem jàpp ji Ousmane Sonko moo ne c'est le moment ou jamais c'est le moment ou jamais loolu la Abdou Karim wax ne leen ne ne chef la gendarmerie nationale c'est le moment ou jamais allez le cueillir c'est le moment ou jamais allez le cueillir donc ils ont profité de l'occasion pour dem jëri Ousmane Sonko loolu la Abdou Karim wax Karim Diop wax chef bi nga xam ni moo rendre compte Abdou Karim Diop moom procureur mu ne c'est le moment ou jamais allez le cueillir c'est le moment ou jamais chef bi jóg ñu def seeni bataillon dem wàcc fa donc pour wax la ni Sonko laalul téléphone dóorul doomu aadama songul te plainte amul amul fenn fu am plainte j'ai lu le procès verbal procès bi lu ñu koy waxatee sax j'ai lu le document de la gendarmerie et je vous parle de la du document de la gendarmerie ndaw si elle a dit ci document bi que musul porter plainte musul taxaw ci police porter plainte c'est des informations de la gendarmerie c'est pas des informations de nulle part c'est des informations de la gendarmerie je défie quiconque au nom d'Allah le tout-puissant barke laa ilaha illa allah amul benn plainte amul billahi te bu fekkee plainte am na man ak Abdou Karim bu fekkee am na ku ci fel yàlla na safara jël jël jël addiya bu fekkee ne man man maa fen yàlla naa mujj ci safara bu dee Abdou Karim Diop bii wax naan di fen naan oto bi daa paan ak plainte yàlla na yàlla mujjale ko ci ci mu doon mattu safara bu dee man ak moom kenn noo ci fen ci barke Seydina Mohamed ci barke ajuma ji ma ngi ñaan ci yàlla laa la wax kàcc yi ni nga xam ni ñoom def nañ ko yàlla nañ ko gis yàlla na ko seen njaboot per percuté na feeñ ci seen njaboot yàlla leen yàlla xarak ci kaw suuf fii ak fu ñu jëm bu fekkee man maa fen yàlla ma yàlla xarak man ak sama njaboot ci barke ajuma ji laa ko ñaan ne leen amin Abdou Karim Diop fenkat la amul plainte ci procès bi PV bi ndaw si nee na musul plainte taxawul ci police la fille a été traumatisée dafa traumatisé woon ñeenti fan liggéeyu ko ba mu bañ ma yoxee document ya jox ma information ñoom ñëpp a ngi déglu la bañ ma joxee information yi yéen ngeen commencé di woo ndaw si te ndaw si victime kese la bàyyi leen di ko woo du ci dara dafa tombe rek dafa tombe ndaw si du ci dara boo leen di attaqué Abdou Karim ngeen di attaqué Abdou Karim jóob boo leen di attaqué ay chef gendarmerie ngeen di attaqué boo leen di attaqué chef gendarmerie ngeen di attaqué ñooñu ngeen di attaqué seen kër yi ngeen di attaqué seen njaboot yi ndaw si du ci dara du ci tus du ci rien du ci naara ba ngeen ko commencé di woo di ko saaga di kii di woo partout ñoom seen bopp te dañ ko sànni dañ ko largué gendarme ay traître lañ dañ ko largué dañoo largué ndaw si muy dund mettit gi di toog ñeenti juróomi fa ndaw si nalaw ba bët yi néew yi di jooy matin midi soir bu mu defee rapport rapport de la gendarmerie laa ndox rapport bi musul porter plainte Macky Sall utiliser ko avec ses les autorités de la république ñu jàpp ci ba pare di ko fenal di ko sosal sacrifier ndaw si ba pression bi bëree ñu woo ndaw si à la gendarmerie ak borom këram di leen wax ne pour ñu ñëw dëkk si biir gendarmerie nationale bi kaa leen dëkk fii ñu protéger leen. parce que boobu xam nañ ni loqati naa lépp génn naa tour gel bi génn naa portable ba bagage yi nekk ci biir et tout ça ñu tiit ñu woo ndaw si ak njabootam ne ko kaa leen ñu làq leen fii ci gendarmerie nationale bi moo tax ma ne jot naa l'information jot naa euh, euh, Cheikh Sarr le commandant Cheikh Sarr. jot naa information nee ko bàyyil ndaw si këram sàmm leen seen bopp yéen parce que seen kaw lañ jëm peuple bi si yéen lay màbb ji ñun dañuy orienté peuple bi ndaw si du ci dara soxlawul muy dem ci gendarmerie ba di fa dëkk du ci tus ndaw si nu mu mel moom mooy comme ñeneen ñu fa toogoon di barricade dañ leen yónni ñuy ndaw ndaw si def du ci dara c'est les chefs de la gendarmerie ñooñu ñoo ñu def sale boulot bi ñooñu ñoo dox pexe yi donc pour vous dire bi nga xam ne Abdou Karim Diop nee na gars yi dem leen ngeen appliquer dem leen ngeen appliquer lu ma leen di wax nag c'est les c'est les rapports de la gendarmerie les rapports de la gendarmerie fii lu fi defu xam naa ko les rapports de la gendarmerie ndaw si musul déposer plainte oto bi musul panne fa lañ ko gaare ñoom dañu leen yónni spécialement pour ñuy aviser les chefs les autorités ñuy aviser les autorités et elles n'en ont absolument rien à ñoom ponkal yi ñoom ñoo def sale boulot bi léegi nag dinaa leen waxal benn affaire ba ñu demee jaay Ousmane Sonko doole Abdou Karim kenn taalu këram gis naa ñu génn ñoom ñoo def loolu kenn taalu këram lu ma leen wax nag takku leen ko téere république bi amul lu fi daw guddi balaa bëccëg te woowuñu ma ba ci démb réunion Macky Sall bi ba ñu réunion ci biir palais ba balaa ñu faa génn balaa ñu faa génn jot naa renseignement yi ñan ñoo fa dem tout boobu journal sax waxagu ci kenn bindagu ko ñu woo ma ci guddi gi ne ma Macky Sall mi ngi leen di signaloo euh, ay ay ay je sais pas ay ay convention ba bi nga xam ni ki nga xam ni moom mooy euh, euh, lu mu tuddati kii jaawo mam booy jaaw ba ci mam booy jaaw bu mu refusé signé loolu yëpp ci guddi ci guddi lépp laa jot information tout fii lu fi dugg lu fi dugg lu fi waxu mun naa la ko wax da ci lépp mais def tek lu ma xam lu ma war a wax ak lu ma war ta wax ak loo xam ne bu jotagut donc ki nga xam ne mooy Abdou Karim Diop bu ma leen ne kër Abdou Karim Diop tàkku tàkku dara tàkku fa ñoom ñoo leen def information pour dévier leen dara tàkku fa kër Abdou Karim Diop bu tàkkoon buñ ko taaloon ca coofak buñ ko taaloon ngeen gis photo ñu ne bii mooy lu bëri da ngeen koy dégg doo leen ko gis kon war ngeen xam ne da loolu amul sama kër bu mu tàkkee ñu ko taalee ñoom bañ ko taalee ñoom bandi yi ñoom ministre yi ñooñu bandi yi buñ ko taalee yéen ñëpp gis ngeen ko nan la ñuy taalee kër Abdou Karim Diop gisu leen vidéo gisu leen photo dara ngeen bëgg koo gëm attention fii kenn mënu fi def lu ma la lul wax kër Abdou Karim Diop tàkku kenn taalu ko bëree tàkku fa bés boo ko taalee ma ñëw wax la ne taal leen kër Abdou Karim Diop fu Abdou Karim mi ngi mel ni kaña ma wax ba ci këram gi nga xam ne bërki démb fa la daw ndànk quatre heures du la fa dugg mooy kër gi nga xam ni mi ngi nekk Mariste Mariste la dugg Mariste kër googu noonu mi ngi ko nangu ci jabaru Tony Silva bi kër Tony Silva la kër gu nekk Mariste rafet Tony Silva tabax ko à la sueur de son front Abdou Karim Diop suufu jabaru Tony Silva takk ko nangu kër googu noonu kër googu la fanaan bërki démb malheureusement ba may def connexion pour booy dem attaqué ji ko booy yëpp a ngi nalaw booy yëpp a ngi toog seen quatre heures du matin boobu maa ngi yuuxu ba maa ko topp quatre heures du matin Abdou Karim Diop dafa dugg ci kër googu noonu rek kër gi xam ne kon nangu ci jabar Tony Seba te Tony Seba moom ko dafa ma dóor contact yi booy ay mais may mais boobu dama doon ah, dama ko doon embuscade ci biir kër gi taal ndaayam ci biir kër gi dafa rëcc moom xamuñu ma sax dama leen topp ñoom ñëpp laa topp A ba Z amul lu fiy teg senegal dafa yëngu te xaw ma ko daa leen gën a sadik junni yoon maa leen ëpp fit gën la nekk bànni voilà ñu ne waaye je confirme kër gi mars la nekk am na ñu ma jox jox naa leen identification kër gi et tout ñooñu mënuñu mënuñu nekk ak ñoom ñu ñuy jaay bandi déedéet donc bi nga xam ne Ousmane Sonko jàpp nañ ko yóbbu ko jaay ko doole Abdou Karim Diop moo ko jaay doole moom boobu Macky Sall bougé na nekkul Sénégal Abdou Karim Diop voulait coûte que coûte tëj Macky Sall woon ko ni yee maa ngi nii. tëj naa ko gars yi dañ doon ragal tëj naa ko j'en ai profité Abdou Karim Diop il était très content très très très content ba mu defee li mu def il était dafa mel ni ku gagné coupe du monde yàkkamti yàkkamti ba Macky Sall ñëw pour mu ne ko li doon ragal ko tourner autour du pot je l'ai fait le sale boulot je l'ai fait tëj naa waa ji ngi ci kaso bi jël naa ko moo tax bu ko gendarmerie jëlee affaire bi tàng ci seen loxo lan moo tax gendarmerie dem jëli ko ba pare delloo ko police gendarmerie dañoo dawal seen responsabilité non non non non patate chaude la gendarmerie nanguñu téye ki nga xam ne mooy Macky Sall ci lañ woo Abdou Karim ne ko non munu munu fi nekk moo tax ñu jël ko yóbbu ko après BAG foofu c'est la police ñu yóbbu ko BAG ci BAG bi boobu yëpp Abdou Karim Diop mi ngi fexe parce que Abdou Karim Diop moom mi ngi fexe nu Ousmane Sonko demee ci kaso mais Abdou Karim Diop fu nekk nii texe na moo tax ma ne Abdou Karim war ñu ko bàyyi muy lekk liñ ko jox ay milliards lay lay jox Abdou Karim Diop texe na tànk buñ ko rayul mooy Abdou Karim Diop texe na gën nañu nday gën nañu bàyyi sànq papay jàmbur Abdou Karim Diop ñu koy jox ay terrain bi ko jox ay kër jox ko ay millions ba mu defee loolu noonu nee naa leen ginnaaw hôtel bu nekk ginnaaw euh, lu mu tëdd université foofu la nekkoon ak njabootam en attendant muy xaar foofu la nekkoon xeex bi stratégie la bul xam lépp di wax xam nga tey bu ma ñëwoon ne fu nekk nii mun na mun na génn ci kër googu parce que man lu may def moom mooy bu ma xamee bu ma toppee waa ji ba na sarax Abdou Karim Diop hôtel bu nekk ginnaaw université foofu lañ foofu lañ ko bàyyi mu toog ba affaire ba gars yi fàtte mu ne man maa ngi ko topp mu ne sarax duggu këram mariste man ma profité dem leen jëli ji ko fan yii yëpp maa ngi visité kër maa xam Diallo nekk fa. ñu ngi fa sotti ay renseignements généraux fan yii yëpp laa wax ñetti fan yëpp chaque jour ma ñëw visiter kër Maham Diallo mais day dof dof lu xool leen ay renseignements généraux yu civil lañ fa teg ñoom ñëpp ñu dof dof lu nii di wër di taxawaale naa nii di xool quoi <laughs> ginnaaw lu euh, mu tuddati mi mi ngi nekk ci canal boobu nekk ginnaaw euh, CICES cité des magistrats boo leen demee cité des magistrats ginnaaw CICES am na benn canal bu ndaw canal noonu canal kër bu muy jàkkaar loolu étage boobu foofu mooy kër maa xam jàlla moom moo ko moom njabootam fa lañ nekk mais dañ leen a rawale dañoo daw ñetti fan maa ngi fa ñetti fan maa ngi koy visité every fucking day maa ngi fay ñëw ba sama sama gars yi ñëw foofu ñu ñu booy di dof dof lu yi ñu fasaat ni policier gendarme yi civil ñu ñu ne yee dañuy nax ko xool di dof dof nga leen di nuyu ñu jéem a yëndu di xool ma ne booy bi bul enregistré bul filmer rombal ne gars sama gars ay jot ba nekk fa kon maa man maa la topp gis naa renseignement généraux yi ñu fa tuur gis naa lépp dof-dof lu beeg dof kii yooyu nekk ci koñ bi yëpp lépp laa yow leen topp pied mais par main maa leen topp yéen ñëpp donc di leen xamal ni encore une fois pour l'instant pour l'instant parce que man dañu may jox information am yu ma ci war a mun a wax am yu ma ci war a tée am yoo xam ni ñoom moom mooy nañu naan épée Damoclès épée Damoclès épée Damoclès mooy genre jaasi bu ñuy wërale ci sa kaw bopp information yooyu yëpp mu ngi fii mais ñi nga xam ni ñoo bokk ci Sonko ak ki ma jox téléphone téléphone bi sax yónnee nañ ko léegi ma jot ci incha allah mu ngi ci yoon bi ak ki ma jox téléphone bi coole bu mu amee bu ma njëkkee wax ba wax ci sëriñ bi sëriñ Cheikh Saliou xam nga lu tax ma wax ci ma teel a wax premier affaire ci sëriñ Cheikh Saliou parce que kooku sama kilifa la sama sëriñ la nit bu ma naw la nit bu ma fonk di doomu sëriñ Saliou Mbacké sang bi di nit ku sell ma gis pexe yi nga xam ne dañ ko doon Marème fay sàll ak ki nga xam ne Antoine ñàkk jom moo nekk ci biir kër googu ne moom dafa gëm sëriñ bi ñu koy pexeel loolu moo tax ma teel ko wax ndax sama kilifa la du ma seetaan kenn di pexe ndem pexe du ci lu tax lu tax yàlla defee ko nii lu tax yàlla defee ko nii ba mbir yi mujjee këpp lan moo tax après su Sonko mujjee dem parce que Serigne Cheikh Saliou bu koo xam da ngay ñëw dal ci kawam déedéet baam daf fay liggéey liggéey joo xam ne liggéeyal ko yàlla ba nga xam ne bàyyiwu fi njaboot bu bu taxawaalo ko caaxaan bu leen neex def lan moo lay metti ci kër Serigne Cheikh Saliou moment bi nga xam ne Ousmane Sonko nee na ba ma tëddee ci lalu hôpital Serigne Cheikh Sall moo ma yónnee alal guñ ma fajee madame Faye Sall mel ni rab mel ni ku dof guddi googu madame Faye Sall nalawul conférence ma bu Sonko bu mu toogee ci lalu hôpital bi di wax ne di expliquer bu mu defee con euh, waxtaanu téléphone boobu wax ni moom Serigne Cheikh Sall sax moo ko faj moo ko yónnee alal bu mu fajoo madame Faye Sall mel ni dof mel ni ku ci ay ja ku ay jënd mu mu mu jàpp ni Serigne Cheikh Saliou daf daf leen wor ñoom affaire mu métti lu ko lool sax ñi raxaat ci moom Ousmane Sonko tabaski jot Serigne Cheikh Saliou yónneewul yónneewul xar Macky Sall yónneewul xar Marème Faye jëlaat xar bu day ni in kuy bu day ni innama jox ko Ousmane Sonko foofu la Marème Faye Sall taxawee nag ne non kii il faut ñu pexeel ko il faut ñu pexeel ko ñu commencé Marème Faye Sall di teg ay plan am moom ak ñoom Antoine ñàkk jom nga xam ne mooy nee naa leen Antoine ñàkk jom Marème famille Marème Faye Sall ñoo ko def ministre loolu yàgg naa leen ko wax mu commencé di waxtaan ñi teg ay plan pour nan lañ mën a def pour empoisonner ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Saliou et tout ça mi ngi ci biir portable bi pour empoisonner Serigne Cheikh Saliou c'est un portable service du ay caaxaan ñu codé même ndaw si sax ndaw soo si mënul dugg foofu même ndaw soosu laa la wax mënul dugg foofu parce que téléphone bi nga ko yor dugal ay code ci biir code code ci biir code code ci biir code noonu téléphone mën nañ la jox téléphone bi yow nga ubbi nii dugal sa pièce di wax mais yow mënoo dugg ci biir noonu lañ def kon loolu ñu gis nga xam ne moo nekk ci téléphone bi loolu moo tax ñu ñëw wax pexe yi nga xam ni Marème Faye sàll mi ngi ko doon jéem ci kër sang bi nga xam ne wëliw kaamil la muy sëriñ Cheikh Saliou yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na yàlla guddal fanam li Sonko wane mbëg mbëg ak kóllëre gum séq ak Serigne Cheikh Saliou loolu da leen a metti ñu ko doon jéem a fexeel loolu mu ngi ci téléphone bi mais nag loolu dafa indi coow loolu laa leen wax coow dafa réew mi dafa bëri coow dafa indi ay coow man ab mbàkke mbàkke woona ma gën ma firndeel leneen ak yeneen ci këru mbàkke mbàkke yi nga xam ni Macky sàll jéem na ko ak ñoom Marème Faye jéem nañ ko ci këru yenn yi nga xam ni yenn mbàkke mbàkke yi nga xam ne nanguluñ leen ci li ñuy teg jaami yi ñi leen di pexeel am na ab sëriñ boo xam ni moom day bañ dafa bañ nooteel dafa yàgg ba pare xaritoo ak Ousmane Sonko dañoo dem këram di changer ne dañ koy changel ay climatiseur def fa ay genre ay mbir yoo xam ni comme climatiseur yu fa nekk yoo xam ni boo koy nokki boo koy nokki mun nga dem ba commencer am cancer ñu ne dañ koy ñu ñëw indi seen i yu ñu préparé bien préparé ak genre kii yooyu mooy genre euh, yi nga xam ne boo ko defee raay duut yooyu noonu day nekk ci climatiseur yi raay duut ñu def ci am ñu empoisonné ko ba mu fees dell nga xam bu climatiseur bi di yëngu lu muy gën a de air bu ngay nokki noonu day ànd ak poison bi dafa jëm nañ ko def benn sëriñ jéem nañ ko def benn sëriñ fii nii mais yàlla moo suturaal sëriñ boobu noonu affaire ba mujjul sotti jëm nañ ko def beneen coow lañ indi ñu ne sëriñ boobu noonu waajooju doon doon monté clim yi dafa sàcc ay millions ci kër sëriñ bi coow li am fa Sénégal yëpp di wax ay sàcc millions déedéet <laughs> affaire climatiseur la woon empoisonnement buñ ko doon jéemal si ay sëriñ parce que Macky Sall dafa waxoon sëriñ boobu bu muy wut deuxième mandat dafa demoon pour mu ñaanal ko mu ne ko bii mooy deuxième et dernier mandat sëriñ bi ne ko ah bii mooy waaw sëriñ bi ñaanal ko yàlla def deuxième en deux mille dix neuf mu sàcc élection yi gagné ko ci sàcc donc foofu la jeexee makki Sall Marème Faye ñu Marème Faye ne Macky Sall doo bàyyi doo bàyyi de da ngay léegi ñoom dañ doon fexe nu sëriñ boobu dee wala nekk ci tolof tolof gàllankoor ba nga xam ni Macky Sall bés bi wax waxu deuxième troisième mandat day fekk sëriñ bi du taal dara mi ngi nekk ci diggante dund ak dee. loolu lañ doon fexe loolu moo tax ñu jéem a def seen plan boobu nañ fexe nuñ ko liquider wala mu nekk ci dund ak dee am cancer toll ci dund ak dee nga xam ni balaa balaa balaa ñuy wax waxu troisième mandat loolu moo tax Macky Sall yeexal waxu troisième mandat kese parce que lu wax ak bi la. te ba ñu mujjee sëriñ bi bu woo na ko ba mu toog coow li di bëri mu ne ko mbaa yaa ngi sàmmoon teg sa kàddu mbaa yaa ngi sàmmoon teg sa kàddu mu ne ko waaw maa ngi sàmmoon teg sama kàddu boobu yëpp ña ngi koy yeexal pour xool na sëriñ bi nekkee ci ay gàllankoor wala tolof-tolof wala feebar wala dee nga xam ni moom ku mu ku mu seqaloon kàddu googu nekkatu fi wala mu ngi ci dund ak dee wala mi ngi ci ay tolof-tolof mu mun a génn nag taxaw wax waxu man mandat kooku rek ko sonaloon du sénégalais de moo tax mu doon xaar processus bu ñu mën a def pour éliminer kilifa googu noonu en attendant ñoom ñu mën a ñëw déclarer troisième mandat. moo tax boo leen xoolee Macky Sall bi muy wax waxu dewuma troisième mandat boo leen xoolee Marème Faye xam ne Marème Faye n'était même pas au courant moom lu mu doon xaar mooy Sall ne damay def troisième mandat moo tax bu ngeen ko gisee mu mel ni ku jaaxle woon amul benn kanam bu Marème Faye wane ni moom yëgoon na sax information bi yëgu ko woon moom lu mu waxante woon ak Macky Sall moom mooy troisième mandat. mais sëriñ bi mënu loon toog foofu mënu woon toog foofu nekk fa ba pare ñoom ñu def seen pexe boobu noonu pexe ba sottiwul après ñoom ñu mu a taxaw di wax waxu troisième mandat kon dëkk bi day tàkk ba pare sëriñ boobu bu boobaa dina génn lu bëri dina yàqu ci ñoom ay vrai bandi lañ ñooñu du ñuy jullit buñ doon jullit Marème Faye du dem ba Màkka yore ay di sànni jamra di saboté naan lii di sànni di mel ni kuy foo di reetaan ku xam lan mooy sànni jamra jàng alxuraan ragal yàlla doo dem ba màkka dem di sànni jamra yore mel ni ku yore sa xeer di dàq ay pitax wala di dàq ay picc kon boo ko xoolee xam ni Macky Sall kenn waxatu ko mooy wax ay sóoraat yu yàlla musul bind bu yàlla sax xamut ay sóoraat yu yàlla xamut yàlla moom moom ci boppam Macky Sall mi ngi wax ay sóoraat yu yàlla musul dégg kon ngeen xam ni kon kooku amul diine ngeen xam ni kooku xamul yàlla donc ñooñu luñ mën a def mun nañ ko def ndax nguur jaral na leen ko donc pour l'instant comme ni ma leen ko waxee incha allah bu ma amee la liberté ci sama Facebook je vais revenir incha allah pour ñu yeggali li nga xam ne moom mooy ci portable foofu Facebook laa ko bëgg a eggalee donc pour l'instant fii laa ko yemale ba demain incha allah bu ma récupérer sama Facebook ñu ñëw ñu continuer yenn affaires yi nekk ci portable ba ak coow li ci am ak lépp nu mu demee mais jàpp leen ni lii lépp Macky Sall moo ko orchestré te ki Abdou Karim Diop moo ko moo ko appliqué donc ñoom Abdou Karim Diop ñoom le les le chef chefs le les chefs gendarmes waratuñ fi am jàmm waratuñ fi am salaam seen njaboot yi waruñu nekk ci jàmm waruñu nekk ci salaam donc dañuy continuer la combat en attendant la résistance ñu taxaw ba incha allah demain. à 20h ah, c'est sûr je vais récupérer 20h ici mun na guddi foofu je vais récupérer donc dimanche le matin mun nañ def sax live boobu on va continuer les informations on va continuer di waxtaan ak yéen ci li nga xam ne moom moo xew ci dëkk bi ak li fi am. mais pour l'instant coow loolu bëri na wax ji bëri na et on m'a suggéré nii pour l'instant nii sax dañ ma waxoon na ma ñoom kilifa gi joxeegul ndigal pour ma génne li ci eh, portable bi. kilifa gi joxagul ndigal pour ma génne li ci portable parce que affaire bi bëri na coow ay sëriñ wax nañ ca parce que loolu mun na taal réew mi nee nañ ay sëriñ wax nañ ca ay chefu police wax nañ fa ay chefu gendarme wax nañ ca coow la réer na ñoom seen bopp waa Pastef njiit ya ñëw nañ ne ma pour l'instant teel wax ji chef kilifa gi joxegul ndigal mais dinañ ci gën a revenir incha allah one love jaaraama enamaaw